3 buts à 0, c'est un score assez lourd. Comment est-ce que vous l'analysez Qu'est-ce qui qu qu n'a pas marché dans le contenu Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu lourdement euh, devant l'AS Pekin. C'est que c'est difficile à digérer, d'autant plus que la, la, la physionomie du match ne reflète pas ces trois buts. Donc il y a eu des erreurs individuelles. Donc euh, on l'assume. Euh, sur le plan euh, du jeu, En première période, euh, on a encaissé un but à la 17e minute avec une faute de main du gardien. En deuxième période aussi, il y a eu deux erreurs individuelles de mon latéral gauche sur le deuxième but. Et au troisième but, sur l'axe central, Chafissau, qui ont donné des, des cadeaux vraiment à l'adversaire. Donc à ce niveau de la compétition, surtout <clears throat> à Pékin, qui est intraitable euh, depuis deux ou trois années à domicile. Donc, euh, ça, ça, ça, ça, ça, ça vraiment gâté le match d'aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'il y a un problème euh, tactique, d'autant plus que l'adversaire ne nous, nous, a pas été supérieur ni dominé dans le jeu. Donc euh, s'il y a trois buts, c'est vraiment des fautes individuelles qu'il faut, qu'il faut corriger, d'autant plus qu'en début, en début de marche on a, on a alarmé. Même à la mi-temps, on a alarmé. Donc d'être plus, euh, plus rigoureux, surtout dans les prises de balles et les décisions. Donc euh, c'est un, un, une défaite, euh, certes lourde, mais qu'on accepte, d'autant plus que euh, l'adversaire n'était pas supérieur ce soir pour vraiment gagner par euh, ce score. Bon, c'est un championnat, ça arrive, d'autant plus que peut-être euh, certes. cinq journées, on ne gagne pas. Mais comme je l'ai dit il y a pas, je l'ai c'est une nouvelle équipe, un nouvel staff. La mayonnaise n'a pas encore pris, d'autant plus qu'on pouvait aussi enchaîner cinq victoires et mal terminer. Donc c'est le temps du championnat, nous on est habitués à ces jeux. Donc le travail continue. Hein? Comment on pas non, il n'y a pas <laughs> le football. Il faut l'accepter. Mais si ça ne marche pas jusqu'en juin, il faut prendre nos, nous prendre nos responsabilités, ça, c'est le fou. Oui, c'est un bon père axial, tant plus que. Bon, euh, c'est aujourd'hui seulement qu'il a, fait une faute individuelle, mais les deux matchs précédents, il a été super. C'était même euh, pour moi l'homme du match contre Guédiawaye et contre Casasport. Ok, le, le capitaine, coach, s'il te plaît. bon tey tey joué nañu joué nañu fii ci Pikine match bu match la boo xam ne mën nañ ko jàpp nii dafay dafay bëri regret parce que du équipe boo xam ni daf ñu mën wala daf ñu dominer mais ci ay erreurs individuelles si nañu jëlee ay buts ay bi yu bëri. parce que premier mi bi góol bi mooy mooy mooy jàpp bàyyi deuxième mi bi boo xoolee ñaari bi ñu mujj jël kenn benn latéral gauche bi mooy def mauvaise relance. troisième bii bi tamit axe bi moo moo moo moo jël bal bi jox euh, avant centre bi donc ay erreurs yoo xam ni mënoon nañ ko éviter en plus que ñun euh, waxoon nañ leen que dès le départ leen éviter leen genre erreur yooyu ñu prudent xam nga ñaaw li ñu naan ñaaw njort ci match bi mais malheureusement defuñu ko euh, peut-être dañ nekkoon trop ci confort pour mën a joxe bal de but yooyu donc fii à Pikine nga fi maye genre bal yooyu dañ lay dañ lay dóor score bu bu bu bu bëri d'autant plus que ñoom fii dañ ko maîtriser seen terrain la donc euh, voilà match bi daal noonu la demee euh, perte nañ perte nañ point perte nañ ko difficilement d'autant plus que sport yi 3-0 koo ko koo ko wax tamit danaan la waa ji moo ko mën donc loo xam ne dañ koy nangu mais ñoo ngi cinquième journée donc euh, des na journée yu bëri dañuy gën a liggéeyaat rek comme ça li ñuy dal tey ñu bu bañ di dalaat ok capitaine may ko mu donc capitaine doon nañ leen trois 0 dafa mel na score bi noo ko gisee dafa métti wala c'est normal que ngeen perdre noonu. non metti na métti na parce que bu ñu sañoon ñu dóor parce que ñu fi pour match nul wala ñëwuñu fi pour jël défaite dañoo juste pour jouer pour gagner te loolu moo ñu fi indi woon malheureusement perte nañ par 3-0. duñ def lu dul dellu suñu camp liggéeyaat pour jéem a jublu ci yeneen match yi nekk suñu kanam. lan ngay justifier bëri. waaw bëri na moom bëri na juste que ni euh, comme ni ko coach bi waxee ay erreur individualité yi am ci match bi moo ñu euh, indi lii lépp kon dañuy dem def lu dul rectifier ku nekk def autocritique boppam après ñu jublu ci yeneen match yi nekk suñu kanam. non jusque ni euh, championnat la ñuy joué 26 journée la joué nañ 5 dese nañu 21 match suñ kanam duñ def lu dul dem liggéeyaat pour gagner yeneen match yi nekk suñ kanam. donc amul panique dara. non amuñ benn panique te am naa yaakaar si sama suñu joueurs yi te foog naa am nañ liggéey boo xam ne ñu ngi koy def jusque ni bu ñu ñëwee terrain ñu gën a dal liggéey li euh, def li li ñu coach bi santaan dañ ci génn incha allah. d'accord merci